mbokk internautes yi dalee nag jàmm ministre de la justice maître Malick Sall keroog ci passage nga mu amoon ci assemblée nationale ginnaaw session plénière bi nga xamante ni nag doon na ko daal di nag def ngir daal di nag jéem a convaincre député yi ca pencum ndaw réew ma maanaam ci assemblée nationale ngir ñu daal di nag koy votel li nga xamante ni moom mooy loi ngir daal di nag soppi code pénal ak code de procédure pénale boobule séance plénière na fay amoon lool majorité bi ak ñi nga xamante ni ñoo fexe a ci opposition bi ndax ki nga xamante ni moom mooy maître Malick Sall ministre de la justice ñëw ngi défendre modification code pénal ak code euh, ni nga xamante ni moom ci niñ ko nar a duppee na ko ci député yi ndax nag ku ci nekk bu amee sa cinq minutes temps d'antenne bi nga xam ne wax nga ko daanaka rokkos nga ko benn boo xamante ni moom kii di maître Malick Sall daf ko doon dajale benn par benn ci dajale boobu lak ba mu daal daal di naka pare ba war a jël kaddu moom ministre de la justice tontu leen lu leen métti ñoom député yi ndax ca saasa la leen ne duma daal di tontu li nga xam ne ay wéq la yoo xam ne ci ay mbaam la joge mbaam boobee nag nekk moo bi nga xam ne ñoom député yi nag daanaka ca saasa bi ñu ko yuuxoo méttit lu ko yamuñ ca ndax nag dañoo def ñoom benn nag kuréel ci nag benn collectif boo xamante ni dafa daal ci ëmb ay député yoo xam ne ñoo fare ci opposition bi ngir daal di nag signé benn pétition boo xamante dañuy daal sàkku na ngir ñëpp signé ko muy askan bi yëpp ngir ñu daal di nag ah, tekki ndombal tànkam moom di ministre Malick Sall ñoom bu ñu sukkandikoo ci député yi nee ñu nag lii ab nag déshonneur la ak yàq der ak saaga nag ci institution bi bu weesoo ñoom député yi moom maître Malick Sall dafa leen saaka ñoom ñii député ba noppi jaaree fa saaga institution bi di assemblée nationale mi nga xam ne daanaka muy deuxième institution ah, ci réewum Sénégal ak fépp foo nga mën a daal di ca mujjantal ga nee na leen baal ma ak xëy na mel ni nag ku daal di xam ne li mu wax daanaka ëpp na ndax dem ba leen di traité de mbaam ndax bu ne du ma tontu ci ay wéeku mbaam daanaka naka attaques yi nga xam ne ñoom député defoon nañ ko naka ci ba ñuy jël seen i naka temps de parole loolee moom la doon daal di naka tontu waaye fu mu nekk ni ñooñu député yi taxaw nañ temm ngir signé boobu lay pétition ndax nee ñu dëkk boo xam ne dafa sérieux bu doon benn dëkk boo xam ne dafa sérieux ki nga xam ne mooy maître Malick Sall mu daal di jógee ci assemblée koy président de la république Macky Sall li ko woo mu ñëw daal di koy limoger ci nu mu gën a gaawee ndax am na yenn ci ay kàddu yoo xamante ni nag ku ci mel président wala boo nga nekk la république waroo ko yëkkati ndax nag askan wi ñoom ñoo daal daal di jox privilège yëpp rawatina nag di la votel ak itam di la fayal impôt bi tax ñu jël en charge lépp ci sa famille ba ci sa fonctionnement moo tax nag ab pétition ba nga xamante ni lancé nañ ko ñoom député yi fare ci opposition bi ngir maître Malick Sall daal di démissionner lu